mais nag cadre bi moo fi amul donc li ñu fi def yëpp donc li presque bi nii ay Youssou si moo ko defar sur euh, ay thématiques sur l'environnement euh, vestiaires yi ñu def nii ay matériel de récupération dañ ko def rek quoi de canalisation ndax ñi dëkkoon si kaw seen ndox li yëpp dafa doon wàcc si salle donc loolu dañ ko def kër gu nekk canalisation yi fi nekkoon ñu éliminer ko génnee ko beneen projet bi moo doon am ay pile électrique yoo xam ne lu mot ay cinquante mètres carrés yu fi amuloon njëriñ donc dañ defaraatoon système électrique bi yëpp ñetteel bi moo di après que il fallait que ñu jënd ay glace defaraat ay tapis pour xale yi à peu près 8 mètres carrés xale yi war a mën a évoluer teg bi mooy ñu ne woon du ñu def ay vestiaire collectif parce que xale yi il faut que ñu am xam ne dañuy sumé ko si la ñuy récupéré ay tablement dagg ko def naat euh, fii li ma si bëggoon wax rek mooy xale yi fi ñëw nii ñëwuñu pour ay euh, bàyyi defal yàlla ñoom dañuy ñëw aussi fii pour jàng aussi ñoom ñoo ut seen xaalisu bopp ñëw fii donc li ñu doon bëgg a woon mooy suñu xale yi fi nekk tey mu jóge si autorité bi war nañ mën a aussi di yenn xalaat aussi di ko def aussi lu war a mën a jëmale kanam euh, askan bi mais di leen jëmale kanam ñoom si seen bopp loolu moo doon message bi. wax xam nga xaalis amul importance man dama tàmm di wax.

salle. ça, je tenais à dire que je vis à Nantes, mais je suis né à Rufisque, je suis un ancien professeur d'éducation physique. Donc la question c'était qu'en amont d'abord du projet, il y avait déjà une préparation. Il y avait une préparation de, ces jeunes sur la pratique gymnique. Il y avait aussi une formation des enseignants qui étaient là et qui étaient partis en Nantes. Et aujourd'hui, euh, nous avons des jeunes qui sont champions d'Afrique. Mais pour pouvoir consolider ces acquis, il fallait faire avoir une installation. Et l'installation consistait à quoi aujourd'hui D'avoir une salle praticable qui permettra aux boxeurs, aux judokas, aux lutteurs de pouvoir avoir un espace euh, convenable. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il, était temps que cette salle puisse être utilisée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.